di ñaanal ñi nga xam ne ñoo ñuy déglu te nekk bitim réew yal na yàlla defal leen tawféex musal leen ci coonab tukki te yokk leen seeni wërsëg te defal leen jàppandal di ñaanal ñi nga xam ne ñoo ñuy déglu te ci waxtu wi ñuy waaj a dem di lijjanti ji ay mbir yal na lépp jàppandi yàlla mën na ko yal na ko def ñi nga xam ne ñoo fanaanoo ay tawat yal na borom bi may leen saafara te defal ñu kendalu jàmm ku bari sutura la ku bari ay xéewal la yal ñu ko boole defal. ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di nuyu ilimaan yi nga xam ne ñooy bàyyi xel jotaay bi yépp waxtu wii doon seen waxtu wéttal ñaan borom bi subxanahu wa taala mu sàmm leen imaam Mouhamed Seck Ndiour ca la bokk ca Thiès ñu ngi koy nuyu bu baax a baax jël nuyoo ilimaan yi topp almisbaax yépp teg ko ci loxoom di nuyu Serigne Seck am di jàmm yi di ci siyaare bu baax a baax sëriñ Baara bu sëñ Modou Faati Xëri di suñu soppee di suñu sëriñ di wétli ko jotaay bi. ngir yàlla ak alquran ñu ngi koy nuyu bu baax te di ko siyaare bu bax a baax di siyaare doomi soxna yi topp jotaay bi yépp ak soxna yi ñu war a tàmbali beneen tomb gannaaw bi ñu waxtaanee lu jëmoon ci wàllu jooy te yàlla tax ak lu jëm ci xalaat borom bi subhaanahu wa taala ak teewlu ko benn baat boo xamante ne moom la ñuy wax euh, attaamul attaamul mooy rek mën ngaa wax ne xalaat xalaat maanaam di settantal màggu borom bi subhaanahu wa taala di def euh, méditation waaw méditation noonu la euh, nga xamante ni cellant googu ak jëfandikoo xalaat yooyu euh, dafa am solo lool ci dundug nit te nit ki war di ko bàyyi xel baat bi baatu taamul ak taamul bu ma delloo ci nim laytaayandloo ci luxa nga xam ne rek ta am mala day doon kon alif ak miim ak lam loolu moo nekkoon cosaan li euh, déggin wi ci boroom xam-xam yi doon am mooy atasabut wala intizaaru mooy euh, nangoo sax ci am mbir ak di ko xoolantu di ko xoolantu euh, bu may ñëw ci di xarbaat bi mën naa laa wax ne la rek euh, déggin wiñ ci am mooy jëfandikoo say xalaat waaye nag settantal li nga xamante ne moo nekk ci sa kanam ab jullit daa war settantal waaye daa war di ab xoolam moo tax boo ñëwee ci istilaax ñoom ata amul dañuy wax ne rek tadqiqu nasari fil kaahinaati bi xaradil ittiaazi wa tasakkuri waaw xóotal sab xool xóotal sab xool ci fenti borom bi subhaanahu wa taala ci anamug waaru ci ak anamul settantal ko mhm. al wi day wax ni a taamulu huwa istimaalul fikri mooy jëfandikoo xalaat jëfandikoo xalaat borom xam-xam yi indi nañ ci ay baat yu yaatu moo tax loolu doy na ci sëkk ci xamle baat bi rek bu ñëwee ci boroom xam-xam yooyu imaam Ibnul Xayyim rahimahullah day wax ne a taamulu fi l quran mooy taxdiqu naaziril qalbi ila maanihi waaw mooy xóotal sab giseenu xol ci maanaay alquran yi waaw di ko xalaat di ko settantal di ko settantal di ci xalaat jëfandikoo ci sam xel ci xóotal ko bañ mu bañ a doon rek njàngum kese-kese mu àndutukum dégg laa mujarrada tilawatihi bila fahmin wala tadabburin mhm. du doon rek njàngum mu rafle noonu nga xam ne da ngay jàng rek dem bismillahi rahmaani rahim alif laam mim daal dem déedéet waaye nag day ànd ak settantal waaye day ànd ak jéem a dégg li ngay jàng loolu mooy settantal ci mbir mu man mu man di doon moo tax méditation euh, lu am solo la lu am solo la ab jullit war na koy jàng bala ma caa gën a sori sax boo gisee ñu daan jox nit ki werd wala ñu ko daan yar ci tudd yàlla wala di julli ci yonent bi da koy dimbali ci mu Euh, man di méditer maanaam mu mën a toog ab diir donte trente minutes la yoo xam ne du wax ak kenn ne cell ne cell waaw jël menn mbir nag di ko xool ak di ko setantal loolu daa bokk ci li tax alquran amal ñu njariñ kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun li yadabbaru ayatihi wa li yatadakkara ulul albaab borom bi loolu la wax yonente bi alayhi salaatu wasalaam téere la boom alquran boo xam ne dañ koo wàcce ci yow muy lu ñu barkeel waaye ngir ñu settantal aayaam yi boroom xel yi ci boroom xel yi waaroo ci kon liya dabbaru moo tax fa laysa shay'un anfaa lil abdi fi maashihi wa maadihi wa aqraba ila najaatihi min tadabburi al amut lenn lu ëpp njariñ ci jaam bi ci ak dundam ak ay delluwaayam di ko gën a jegeel ak mucc ci boroomam subhaanahu wa taala ci settantal alquranul karim ak yàgg ak yàggal eh, looy médité ci alquranul looy looy ci alquranul karim wa italati taamuli fiihi waaw di ci di ci xalaat xalaat gu gudd waaw gu gudd mhm. di boole di boole ni nga ko déggee bu fekkee da ngaa jàng alquran mën a xam aaya yi bu loolu amul nga déglu waaraate yi li ñuy wax léeg nga di ko jël nga di ko jël di ko di ko teg ci taabal ji di ko teg ci taabal ji ndeysaan waaw di ko teg ci taabal ji di di eh, ci xalaat di ci xalaat di ko di ko settantal settantal yu xóot yooyu nga xam ne moo ci nekk loolu am solo la baatu atta amul bi may waxtaane du baat boo xam ne dañ koy fekk ci alquranul karim lam yarit laffu taamuli fi alquranil karim sarahatan noonu lañ koy waxee maanaam baat bi ñëw ci alxuraan nga jàng aaya joo xam ne danga ko fay fekk ñu tëggee ko nii loolu amu ci waaye aaya yi koy junju ak yiñ ko ciy déggee aaya yu baree baree bari la yoo xam ne borom bi da ciy digle da ciy digle xool da ciy digle ñuy méditer ci nim binde nit ci nim nit moom borom bi subxanahu wa taala waaye yim créé ci kawnu bi ci yoo xam ne yu yéeme la yu yéeme la. di nettali ña fi jaaroon bu njëkk jeexital yi nga xam ne moom lañ fi bàyyi ak loolu liñ ci mën a jànge aaya sax borom bi da daan xas yéefar yi nga xam ne aaya yi day wàcc ci seen kanam waaye seeni bët di xoole ne buq ci li yàlla di wax ak di leen ko joxoñ waaye seen xol yi moom nekk ne nepatuus nga xam ne e, du jéem a xool du gis dara du gis dara moo tax waxat aqtaranat ayatun kathira bil afali yaraw moo tax yanzuru da ngay gis ci alxuraanu karim aay yu baree bari yoo xam ne borom baa ngi koy wax awalam yaraw waaw vanzuru rek waaw xanaa gisu leen xanaa xoolu leen xanaa xalaatu leen yooyu yàlla ngi koy wax nit ñi lu baree bari ci alxuraanul karim waaw bi sixatil mudaari nga xam ne li muy tegtale mooy yëf yaa ngi fi di romb rek di romb rek di romb rek tadullu wa idaamati ruhya awi nazar waaw boo demee ci alxuraan borom baa ngi wax bala maa ñëw ci aaya yeeg yi muy joxoñ awalam yaraw kayfa yubdiu llahu alxalqa thumma yuiduhu inna dalika ala allahi yachir borom bi nee na xool leen xanaa gisu leen waaw borom bi subhaanahu wa taala yéen a ngi laaj ak a question yàlla mooy ki nga xam ne moo fent nit ñi waaye mooy bindaat nit mooy dekkalaat nit bindaat ko mu melaat na meloon te loolu lu yomb la ci moom qul siiru fil ardi fanduru kayfa bada al xalqa summa allahu yunshi'u nash'ata al axira inna allaha ala kulli shay'in xadir yàlla nee na xool leen dox leen ci kaw suuf si tukki leen waaw tukki leen tukki mhm, dox leen ngeen xool waaw ngeen xool ngeen médité nag léeg-léeg xool nit ni mu xoolal ni mu sosoo doonub liir waaw keroog bi sa doom ji dooru juddu loxo yi laxa laxa laxa ba yow mënoo waaw doo méditer ci loolu nga xalaat ne yow ma soon ngaa toll ne moom di yow mi di bàyyam tey bay tëbakadal di cëtëng-cëtëng yi tolloon nga jamono joo xamante ne bant bi gën a nooy ci bant yi yaa ko gën a nooy borom bee la créé woon noonu ndax nag dangaa jóge ci lu toq war a tax waaw di liddeeku nañ ma baal mu koy composé ba mu doon jëmm allahu koy composé ba mu doon jëmm ak yi nga xam ne moo ci aju bis ñëw ñu suul nit ba mu ràppaat nekkaat yax yàlla nee na maa koy tëggaat geneen tëgg ma jël ko tëggaat ko composé waat ko mooñaat ko toggaat ko <laughs> yàlla nee na loolu yomb ci man la inna allaha ala kulli shay'in xadir waaw loolu ci man di fi ne tëgg bi jël ak ceen jël or bi walla xaalis bi ruyal ko ba mu nekk am ndox ba mu nekkum ndox di liddeeku mu jël ko tëgg ci ak tëgg ba ceen gi rafet borom ceen gi takk ceen gi ñëpp di ko lalal tëgg boobu jëlaat ceen gi ruyalaat ko tëggaat ci leneen lu yomb la ci moom ndax da ko man borom bi nag nee na lépp la man moom inna allah ala kulli shay'in xadir moo tax foofu ma ngay wax xul siiru fil ardi waaye fanduru bu ma ci yemoon ci wàllu ataamul ci wàllu settantal ak wàllu xalaat ak xóotal sab gëstu yàlla nee na tukki leen waaye xool leen tukki kon day yokk xam-xam tukki day yokk xam-xam waaw ñi génn léeg-léeg ñu raw wala boog bu ñemee am njàngit génn ga am leneen lum leen yokk waaye ci kaw nag nga nangoo jàng ci génn gi ndax ki nga bokkalutu làkk rek ngay xool ni muy jëflantee xoolal ni yàlla xereñi rek xoola ni yàlla xereñi ni culture yi wuutee li nga tàmmoon ak ñoom lañ tàmm ku ne seetaan sa morom léeg ci col gi léeg-léeg ci waxin wi léeg ci ni ngeen di defee seen façon de faire du ngeen bokkule dara du ngeen bokkule dara borom bi subhaanahu wa taala waxe ko noonu ataamul alladi daa ilayhi alquran alquranul karim da caa woote waaye boo xoolee yéefar yi ca ba alquran di wàcc kuffaari màkka ya ak musrikiina ya ñoom dañoo yëwwut woon ci loolu sàggan ca loolu leen yóbbe leen ñu nuur ci ak mbewte nuur ci seen ngëlëmte lañ nekkoon ba lu baree baree baree bare ci lu ñu waroon a mën a xalaat ba déggee ci borom bi subhaanahu wa taala loola rëcc leen moo tax borom bi daan misaal bëgg xool ci ni mu bind nit mooy ni ma doon waxtaane léegi bokk na ci attaamul fi ixyaahillahi l ard ci ni borom bi di dundale suuf si baada mawtiha mooy taw ak nawet ak yi muy indi waaye attaamulu euh, fi ashaaril umami saabiqa daaw ci settantal jeexitali xeet yi jiitu woon ak nañ doon dunde ak fa borom bi mu ak ñoom yooyu day indi nit ki ci muy settantal setantal googu di ko yóbbe ci xolam di gën a dund ruuxam di gën a yëkkatiku muy gën a jege borom bi subhaanahu wa taala afalam yasiru fi l ardi fa yanzuru kayfa kaana aaqibatu alladina min qablihim wala daaru l axirati xayru lilladina taqaw afala taaqiluun borom bee ngi waxati xool leen tukki leen xool leen waaw dox leen ci kaw suuf si ngeen xool mujjantalug mujjantalug ña leen fi jiitu woon waaw ngeen xool mujjantalu ngeen fi jiitu woon ngeen xool ngeen gis gent yi ngeen gis ña fi jaaroon nag lañ defoon aay yu baree bari ci alquranul karim borom bi subhanahu wa da ciy joxoñ settantal googu ma ñëw nag ci aayaat yi nga xam ne dafa wàcc ci taamul maanan maan ndax waxoon naa la ne baat bu koy tudd saraxatan mën nga koo bañ gis waaye mën nga koo gis fu baree bari fu mu ñëw nag nga mën ko caa déggee bokk na ci a indi fi xalqi samawati wal ardi waaw li nga mën a e, méditer e, ci bind gi yàlla bind asamaan ak suuf borom bi joxoon na ko bataay ndax bëgg ñu xool ci asamaan ak suuf xoolal fi borom bi di waxe naan inna fi xalqi samawati wal ardi waxtilaafi lleyli wannahaari walfulki allati tajri fi lbaxri bima yanfau nnaasa wa ma anzala allahu min alsamaai min maain fa axyaa bihi al arda bacda mawtiha wa bacca fiiha min kulli daabbatin wa tasrifi alriyaaxi walsaxaabi musaqarin bayna alsamaai wal ardi la ayatin li xawmin yaqiluun borom bi nee na xool leen loolu xool leen loolu yéen ñi nga xam ne yéen a bëgg a wala yéen a bëgg a nañ dem ci alquranul karim ñu jël aaya ji ma jàng léegi aaya jàng suurat al baqara mhm. borom bi subhaanahu wa taala nee na bind gim bind asamaan ak suuf wuutale gim wuutale ba bëccëg xoolal loolu nim ñu bindalee gaal yi gaal di daw ci kaw géej gi ngir njariñul nit ñi yàlla nee na ma taw ma taw mooy rek wa ma anzala allahu min alsamaai ma taw ma wàccee ndox mi ci asamaan ndox mi fa axyaa bihil arda baada mawtiha ma dundal ci suuf gannaaw ba suuf si deewee allahu akbar wa basta fiha min kulli daabba borom bi subhaanahu wa taala yii mu yii mu saddal doomu aadama te bëgg doomu aadama xalaat ci bëgg doomu aadama settantal ci scientifique yi mënuñ koo jeexal mënuñ koo jeexal man sax mënuma koo misaal yàlla xam na ko mënuma koo misaal maanaam da ci ciy xuus ba ca fa nga yem yem ca ndax jumtukaay yi tax sax nga man koo misaal sax loolu xam-xam la jumtukaay yi ngay am sax ba man koo misaal nga xool asamaan ak nim bindoo asamaan ak nim bindoo tey boo yéegoon ci luy naaw lu mel ne avion wala dara léeg mu dem ba tollu foo xam ne boo xoolee ci kaw asamaan ngay gis bu dee mën ngaa xool ci kaw boo xoolee ci suufu avion bi it lu mel ne asamaan ngay gis nga xam ne kon daa mel ne am na lu muy bët muy ay niir muy ay niir mu di ko bët allahu akbar am ay yoon ci kaw asamaan si yoon wi léeg muy am ay secousses am fu naqari am fu neex léeg muy yéeg léeg muy wàcc borom bi nee na maa ko def di maa def asamaan soosu nga xam ne amoo yow sax fi mu ne mën xam anamu mën a xam anamu da ngay di daj di yéeg di bët waaye xamoo fam nekk xamoo fam nekk buñ ci taxawee mu sëkk am njàng nga xam ne eh, am na ñuy yéeg dem ba ca weer wa am ñuy dem ba ca jant ba ñoom ñuy tourné ko wëndeelu jamono ji may waxtaane fii mu nekk fajar nga dem ci réew yoo xam ne naaj na fa fi mu ne naaj na fa naaj bu dëgër a dëgër nga dem ci ñoo xam ne ñu ngi ci diggu guddi ñoom nga dem ci ñoo xamante ne allahu akbar borom bi subhanahu wa taala wuutale noonu yëf yi waaye wuutale ko ci doxinu jant bi doxinu jant bi te loolu di ngëneelul doomu aadama loolu mooy wuutale gi mu wuutale guddeeg bëccëg guddi gi di duggante ak bëccëg gi guddi gi di duggante bëccëg gi leen lu nekk ak xéewal yi nga xam ne moom lay indil doomu aadama danañ ci ñëwaat nga jàng bëccëg bëccëg wan nahaari waaw bëccëg jant bi fenk nit ñi xëy nga daje gaa yi dëkk bépp di riir di maj-maji guddi jot dëkk bi ne felaw ñépp ku ne dem dugg ci ab ruq allahu akbar diggante boobu li fi nekk ci am njàngat kenn xamul nu mu nekk mën naa am li nga fanaanoo ñii nga toogal ci bëccëg gi buñ ko xamoon àdduna tukki bëggoo kenn xam ko waaye yàlla nee na xam naa ko waaye guddi moom sutura la wa jaal na layla libaasa guddi moom yére la yére la bu suturaal bëccëg gi nag bul tëdd di nelaw waaw yow mi amul ngant naga dem liggéeyi nag waaw ndax bëccëg it maa ko def jant bi fenk ngeen mën a gisante mën a wuti dara guddi gi ñi ci amutub liggéey dem nopp noppalu waaye xoolal fi mu ne yow sa bopp yaa gën a oyof bato bi waaye boo tegu woon ci kaw ndox mi daal di nuur sa dàll yi sax boo ko tegoon am na nu demee mu bato bi ne ne nongu ca kaw waaw borom bi subxanahu wa taala nee na loolu moo ko def moo tàggatal loolu àdduna defal ku nit ñi ngir mu amal leen njariñ yëmut ci loolu nga xool taw nee na xoolal taw taw <laughs> maa wàccee ndox mi di taw <laughs> mina samaa'i min maa'in suuf si tooy gàncax sax jur gi lekk ci nit ñi lekk ci yàlla nee na maa ngelaw ngelaw li dem a ñëw allahu akbar fi ne ngelaw li eh, nga xam ne avion bi ci loolu lay konte jublu foofa buy daw bato bi noonu ak yi ngelaw def ci àdduna yi ngelaw def ci àdduna courant beeg eh, dunduk doomu aadama waaw dunduk doomu aadama yàlla tàggatal ñu ko nag mu nekk diggante asamaan ak suuf waaw di di joow ndànk bu joowee bu baax ñu yëg ko bu defee joow ñu yëg ko nee na yooyu yëpp ay mandarga la ñeel ñi nga xam ne dañuy jëfandikoo seen xel ñi nga xam ne dañuy méditer ci li ma doon waxtaane yàlla bëgg na koy xalaat yooyu moo tax jenn aayaa ngi noonu joo xam ne doyoon sëkk waxtaan waaye ñu dem boo doxaatee tuuti ci eh, weneen saar muy suratu Ali Imran borom bi indi na fa inna fi xalqi gu mel noonu gii ma wax léegi ci suurat al baqara la aay ju gudd la inna fii xalqi samawati wal ardi wa ixtilaafi lleyli wannahaari walfulki allati tajri fi lbaxri bima yanfacu nnaasa wa ma anzala allahu min alsamaai min main fa axyaa bihi al arda bacda mawtiha wa bashra fiha min kulli daabatin wa tasrifi riyaai walsaxaabi musaqarin bayna sama wal ardi la ayatin li xawmin yaqiluun borom bi nee na yëpp ay màndarga la ñeel ñi nga xam ne dañuy jëfandikoo seen xel buñ ko xoolee xam ne maa yàlla duñ ma yab yàlla nee na ko xool lii te settantal ko billaahi dooma yab <laughs> waaw <laughs> xam naa billaahi dooma yab moom ñu xam ne waxi mbindeef mi la kon muy man waaw doo ko yab de waaw doo ko yab yàlla nee na ku xool lii te settantal ko doo ma yab ma ne ku xool lii te settantal ko te jaare ko fi nga ko war a jaare doo ko yab moo tax ku ku ko xam ragal ko ku ko xam ragal ko koo dégg mu yab yàlla rek daa xamul yàlla waaye ku ko ku ko xam ragal ko waaw ku ko yab nag lu la njorte borom xam-xam yaa gën a réer ñëpp beneen inna fi xalqi bi door a ñëw ca suratu Ali Imran moom it inna fi xalqi samawati wal ardi waxtilaafi leyli wan nahaari foofu la ayatin li ulil albaab waaw yàlla nee na loolu ay màndargala yu wane ne maa yàlla waaye ñan li ulil albaab ñi nga xamante ne dañoo am xel waaw xel yi li muy joxoñ kon mooy ñi nga xam ne eh, dañuy bàyyi xel borom bi subhaanahu wa taala waaw dañuy dañuy méditer di settantal di xalaat màggug borom bi subhaanahu wa taala waaw di settantal màggug borom bi subhaanahu wa taala boo demee ci saar woowu aaya jooju buy daanu borom bi da cay teg lu bari alladina yadkuruuna allaha qiyaaman wa qucuudan wa ala junubihim wa yatafakkaruuna fi xalqi alsamawati wal ard rabbana maa xalaqta hada batilan subhanaka faqina adaba annaar kenn du moom waaw kenn du moom moo tax eh, bëgg na bëgg na ñuy ñuy xalaat màggam gi bëgg na ñuy xalaat màggam gi bëgg na ñu ciy méditer waaw di ko bàyyi xel awalam yaraw anna allaha alladi xalaqa alsamawati wal ard am na bu ko jiitu xulin zuru xulin zuru ca suratu yunus yàlla nee na xool leen xool leen li ne ci asamaan ak li ne ci suuf maada fi lsamawati wal ardi wa ma tuxni l ayaatu wa nuzuru an qawmin laa yuminuun waaw xool leen li ne ci asamaan ak li ne ci suuf borom bi subhaanahu wa taala nee na ngeen xool ngeen settantal ngeen settantal bu buñ settantalee rek danañ xam ni moom ci boppam mooy borom bi subhaanahu wa taala a taamulu fi ayatillahi taala waaye fi xalqi samawati wal ardi a taamulu fi ixtilaafi leyli wan nahaari waaw a taamulu mm, ci ni mu tàggatee guddeeg bëccëg waaye ci ni mu tàggatale maanaam bato yi wal fulki lati tajri fi l bahri bima yanfau nnaas ñu settantal ci loolu ñu settantal ci loolu borom bi nee na bu ngeen ko xoolee dangeen ngeen xam ne maa yàlla awalam yaraw awalam yaraw du ngeen xool xanaa gisu leen anna allaha alladi xalaqa samawati wal ardi xaadirun ala an yaxloqa mislahum wa jaala lahum ajalan laa rayba fiihi fa aba zaalimuuna illa kafura borom bi subhaanahu wa taala bëgg na ñuy jëfandikoo suñum xel bëgg na ñuy jëfandikoo suñum xel loolu mooy eh, li ma doon wax léegi nga xam ne wër naa baat bi ba sonn sax door a am méditation tolluwaay la kenn ku nekk war na koo am am waxtu yoo xam ne dangay toog di setantal ak di xalaat waaye ñu jox la outil nag waaw jox la jox la ay jumtukaay yoo xam ne moom ngay moom ngay tàmbulee li ngay xalaat ak li ngay setantal bu ko defee du la doo juum doo dem ci jëmmi borom bi subxanahu wa taala ak màggaayam ba ba mu jural la ngay wax lu waxuut waaye yim la joxoñ ñii ci ngay méditer yooyu laa la doon bëgg a joxoñ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 ci seen jotaay bii di almisbaax asalaamualeykum wa rahmatullahi